إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bokk julit yi ñi ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ñi ngi seede ne yàlla dong moo yeyoo ñu koy jaamu di seede ne sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom dong moo yeyoo di jàngale nañuy jaamoo suñu boroom jalla wa ala yonent boobu nga xam ne wareef la ci ñun ñu gëm ko wareef la ci ñun ñu topp ko wareef la ci ñun mu gënal ñu keneen ku dul moom gannaaw yàlla jalla waala loolee mbokk am na ndox mu koy suuxat ca loolu mooy lan mooy bari lool di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi jóge ci weeru koor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas la ñëw di yéeg ca min baram ba daal di ne amiin amiin amiin bañ jullee ba pare saxaaba yi laaj ko waaw li nga doon wax lu mu doon mu ne jibril de moo ma dikkal ne ma képp koo xam ne daa fekkee weeru koor ba weeru koor jeex te fagguwu ci lu tax yàlla jéggal ko ku mel nii day yàlla na ko yàlla soril mën a amiin képp koo xam ne mas naa dajeeg ay woy juróom wala mu la ca kenn ca ñoom ca fagguwu ci lu ko jural ngërëmal yàlla yàlla na yàlla soril ko yërmaandeem man it mën a amiin mu ne nag képp koo xam ne nii ñi ngi nekk ci jataay dégg ñuy tudd saw tur te nu julli ci yow yàlla na yàlla soril ko yërëmam yërmaandeem mën a amiin loolee kon gannaaw ba jóge ci chahru ramadan mu yey mbokk ñu fàttaliwaat jaamu gu màgg googu ca muy baril di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aajowul nga dem ci kenn mu la ci jox ndigal déedéet comme naka lenn ci nit ñi gëme fokk nga dem sukk ci kanamu nit mu jox la ca ndigal abadan suñu borom yàlla jalla wa ala moom moo joxe ndigal mboole mi julit daa dina yàlla ak i malaakaam day ñi ngi julli ci yonent bi ee yéen jullit ñi julli leen ci moom te ñaan yàlla subhanahu wa taala muccal ko ak mucc yaa ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kon kooku ndigal la bu bawoo ci yàlla jalla wa ala ni nga xamee ne ba ngay julli damoo laaj kenn ndigal ndax ma commencé julli ba ngay woor damoo laaj kenn ndigal ndax ma commencé woor naka noonu asalaatu ala nabi amul kenn koo xam ne da ngay dem mu la ca jox ndigal bokk yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam julli gi yàlla di julli ci moom mooy ngërëm gëm koy gërëm ci kanamu malaaka ya julli gi malaaka yi di julli ci moom mooy sakku bañ koy sakkul yàlla yokk ay xéewalam yokk yërmandeem ci moom bu ko defee yow jullit heure boo jógee di julli ci yonent bi xamal ne yaa ngi def loo xam ne suñu borom nee na moo ko jëkki sant koy malaakaam doog la koo sant kon mbokk mu bokk ci jaami yàlla yi gën a tedd ci lu doomu aadama di gën a yaakaar julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolee day wane ne jaam bi day ko màggal yonent ba la day yokk cafeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu am sa xol day yokk la nga xam ne mooy say tuyaaba dara gunta mën a far say bakkaar lu toll ni baril di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci loolu zikrullah ci yi gën a kawe li jàmbi yaakaar la bokk na la gën a màggee la ñuy defee zikrullah mooy baril di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul benn yonent bu julli benn julli bu ñuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu dul mi nga jóge ci allahuma salli gannaaw ba loo cee teg nga dokk dokk caa teg zikrullah boobee nga xam ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na fii ak yéen a ngi may tudd day manit ma leen di tudd fazkuruni azkurukum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bégeel ñu ci ne amul benn jaam buy wax yàlla jalla wa ala allahuma salli ala muhammadin wa sallim lu dul suñu borom yàlla subhanahu wa taala dana sant ay malaakaam ñu jottali turu jaam ba ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko day ayyumi yàlla yónni tey jii am na sa jaam am na benn nëb jaamu yàlla boo xam ne mi ngi tudd masalan Bilal Thiam ca Sénégal day mi ngi julli ci yow ka nga xam ne Fat Sow ca Amérique day mi ngi julli ci yow kay nekk ca Indonésie day mi ngi julli ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ma ñaan yàlla mu julli ci yow te bu boobaa fukki yoon la yàlla di julli ci yow ay fukki yoon yàlla dana ko sotti ay xéewalam ci yow ci njëggalam ak yërmandeem ci benn julli bi nga xam ne yow julli nga ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu tax mbokk jullit nañu xam ne siiw du siiw ci kaw suuf de kenn munte siiw ba gën a siiw iblis kenn munte siiw ba gën a siiw ay Trump ak daf yu mel ne moom ala kulli xaal ba ko siiw dëgg dëgg dëgg dëgg kon mi ngi kaw asamaan jullit bi bokk na la lay siiwal ci kaw asamaan mooy baril zikrullah bokk na la lay siiwal ci kanamu malaaka yi baril di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolee kon di mbir moo xam ne ku nekk war naa góorgóorlu bàyyi ci xelam bu baax a baax yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam gis nañ ne suñu borom yàlla dogal na jullit bépp bëggoon na dajeeg moom na am ñëw na ci xadis nee na am na ñuy nar a ñëw sama gannaaw kenn ci ñoom day doon na bëgg teqalikoog alalam yépp teqalikoog njabootam yépp ngiree rek dajeeg man ba teg ma bët nee na loolu ñuy nar a ñëw ci gannaaw dana am ñoo xam ne yàlla dana def ci ñoom cafeelu yonent bi jaraloon na leen gàddaay seen dëkk gàddaay seen alal ngiree rek dem foo xam ne daañ gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla na yàlla boole ñu ca ñooñee mbokk yonent boobee sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ne kon julli ga ngay julli ci moom ca la doon wax ni bu leen def seen néeg yi seen kër yi mu nekk ay bàmmeel laa taj'alu buyutakum qubura ca nga la wayu jullit xamal ne gannaaw jullit farata ci jàkka naafile bi gën mooy naafile ba nga julli sa kër kër ga boo fay naafile yàlla dafay wàcce leer malaaka yërmaane yi dafa wàcc amma kër gu kenn dul julli moo xabru yu ñoo yem mu ñuy jàngalit ndekete kay ay xabru kon kenn du fa julli mi ngi noonu mu ne nag bu leen jël sama xabru def ko daje waayi fu ngeen mën a nekk ci kaw suuf rek di leen julli ci man fu ngeen julli ci man yàlla subhanahu wa taala dana ma ko jottali ca loolu it mbokk jullit ba ngeen juddoo ba tey ñaata daje ngeen dégg màggal bu ñu jagleel sëñ diw daje bu ñu jagleel sëñ diw ndax mas ngeen a dégg fu ñu ne dañuy dem madina ngir daje fa ngir yonent bi alayhi salaatu wasalaam déedéet moom moo ñaanoon yàlla loolu laa tajal xabri iida sama xabri bu ko def mukk foo xam ne nit ñi dañ fay daje te mbokk heure bu nit ñi jógee ci ay gox ngir ab xabru moo leen yóbbu loolee mbokk dafay nekk bunt ci bunt shirk ndax doomu aadama du takk ay bagage am dem ngir lu dul màggal ñetti néeg yu tedd yooyu di masjidul haram masjidul nabawi ak masjidul aqsa loolee mbokk bi mbir moo xam ne kon ñu bàyyi ci xel bu baax bokk na ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañu daan wax kenn ci yéen day du gëm mukk ko lu dul maa koy gënal mboolem lu yàlla bind loolu nag bokk na doomu aadama lii expérience ci lu mu mën a doon képp koo baril tudd aw turam rek loolee day suuxat ngëm sa xol looloo tax gox boo dem en général kañ fay màggal waa gox moom la ñuy gën a bëgg ndax moom la ñuy gën a tudd loolu nag moo tax ab jullit war a góorgóorlu fu mu toll ay noppam yii di dégg turu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di génn ci làmmiñam loolee résultat ba day wàcc ci biir xolam bu ko defee loolee dafay doon yokk cofeel ci yonent boobee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk dañuy gis ne yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci ngëneel yu gën a màgg yoo xam ne wax nañu ko ci ñu julli ci moom nee na yowmal qiyaama day bokk na ñi may gën a jege ñay gën a yey ci man ña nga xam ne ñoo ëppoon luñ doon julli ci man ba ñu nekkee ci kaw suuf loolu di mbir moo xam ne ku nekk ci ñun war naa góorgóorlu jëm ca concours ngir yowmal qiyaama mu bokk ca ña gën a jege yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam képp koo xamee ne nii julli na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu nee na amul kenn koo xam ne dana julli ci man la nga xam ne mooy fukki julli lu dul yàlla teggil ko la nga xam ne mooy fukk ci ay bakkaaram yëkkati ko ci la nga xam ne mooy fukki ca la nga xam ne moom mooy ay darajaam mbokku doomu aadama bi heure boo jógee di ñaan suñu boroom xamal ni la gën a yey ci nga jiital ko mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ñaari mbir mbir mu njëkk ma mooy yonent bi moo la war a gënal keneen ku dul moom xattaa sa bakkan kon bala ngaa ñaanal sa bakkan ñaanal ko waaye itamit dañuy gis ne yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne dafay julli di ñaan nga la waay jiital julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolee ci lay gën a gaaw ci nangu ñaan la dégg na benn waay mi ngay julli gannaaw ba di ñaan kon commencé rek ñaan ay soxlaam mu ne kii de yàkkamti na nga la waay bala nga ñaan na nga tagg yàlla bakk yàlla julli ci yonentam doog a ñaan da nga xam ne ni da nga koy ñaan loolee mbokk di mbir moo xam ni kon dañ cee war a bàyyi xel bu baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo bëggee say aajo faju heure boo nekkee ci yaakaar aajo ñàqare laam tiis la loo yaakaar laam lu mën a doon ngal la waay bari rek di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolee da ngay gis ne yonent boobee ba nga xamee ne ni kenn ci sahaaba yi di Ubay ibnu Kaab ñëw ne na ko yu mu yàlla yónni man day danaa bari di julli ci yow lool ci samay ñaan xanaa dama dem naa sax ba ne naa la jagleel ceer ba mu ne ko ah kon day sa mbir baax waaye boo ko yokkoon mu gën mu ne ko kon ma jagleel la genn wàll ga mu ne ko boo ko yokkoon mu gën mu ne ko man day samay ñaan yépp kon danaa la ko jagleel mu ne ko loolu day boo ko defoon yàlla dana la baal sa mbooli mi bàkkaar teggil la sa mbooli mi tiis ak sa mbooli mi njàqare loolu kon mbokk ca la gën a am solo lu ñuy jokkoog suñu borom la ngiree jot ay xéewalam ngiree mucc ca la nga xamee ne nii moom mooy ay mbugalam donte ne mbokk yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam noonu mu amee importance ci julli ci moom ca la nag lu bari ci doomu aadama yi ku nekk créé benn salaat ne salaat bii mooy ne gën nañuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa mbooloo jagloo ko mu indi ak parparloo indi ak puukarante waaye mbokk wallahi suñu delloo ci diine bu sax mu jóge ci téere ya bawoo woon ca ñoom imaamu Malik wàcc si ba ci ñun dañuy xam ne sahabatul kiram day ak taabiin xamuñu woon lu dul salaatu alal nabi bi gën a baax bi gën a mat mooy bi nga xam ne booy julli moom ngay wax lan moo waral loolu gis nañu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ne bis kër saal ibnu ubaada lenn ci sahaaba yi fekk jataay ba kii di doomu saad di bashir na ko ay yumi yàlla yónni yàlla dafa wax ci ab téeréem ne ay yéen jullit ñi julli leen ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di koy ñaanal ak mucc amma ni ñu lay ñaanale mucc ay ni ñu lay nuyoo xam nañ ko assalaamu aleyka ayyuhan nabi xam nañ ko waaye naka la ñuy jullee ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen da ngeen di wax allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahim mi ngi noonu innaka hamidun majid mbokk li mooy salaatu bi gën bi ñuy jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën nekk tekkiwul ne boobu rek la ñuy def waaye gëmal ne bii moom mooy ba gën mu bokk la ci gën a gàtt allahumma salli ala muhammadin wa alihi wa sallim yàlla yàlla nga julli ci yonent bi ak njabootam ci muccal ko sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xame ni ni da ngaa dégg aw turam lii lépp mbokk da ngay gis ne jullit bi da ko war a bàyyi xel ci digganteem ak yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ñu baril julli ci moom waaye baril julli ci moom it tànn place ya gën ñu julli ci moom loolee mooy ëpp doole baril julli ga bokk na ci loolee mbokk jullit heure boo déggee aju nodd ji di nodd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ànd na lak moom ci nodd gi ba mu pare su ko defee nga daal di julli ci man boo indee salaatu ibrahim yi ba moo gën a baax la gën a gàtt mu ne mu xam kii bu jeexale ak noddam laa ilaha illa allah nga wax allahuma salli ala muhammadin wa sallim loolu mooy la gën a gàtt mi ngi noonu gannaaw ba ngeen ñaanal ma wasila nee na place la ci àjjana boo xam ne képp koo xam ni bu déggee aju nodd julli ci man ñaanal ma loolu yowmal qiyaama dana dagan mu bokk ci ñi ma yàlla jox ndigal ñu rammu leen ñu daal di tabbi aljanna yàlla na yàlla subhanahu wa taala boole ñu ci ñooñee ñaareelu waxtu yu mbokk jullit kii di aws ibnu aws radiallahu anhu nee na yonente bi alayhi salaam day toog nañu ak moom mu ne ay waay inna min afdali ayaamikum yowmul jumaa fiihi xuliqa aadamu alayhi salaam wa fiihi qubida wa fiihi nafqa wa fiihi saaq ila axiri faksiru alayya salaat fa inna salaatukum maaruda alayya mu ne xam leen ni bis bi gën ci yéen mooy bisub aljuma ci la yàlla tànnoon bind ci seen bay aadama ci la yàlla tànnoon wàcc génne ko aljanna indi ko ci kaw suuf adduna du jeex lu dul bisu aljuma yàlla buy daje gaani bisu aljuma lay doon kon bari leen fu ngeen toll di julli ci man ci bisub aljuma mbokk bis nag dafay ëmb guddeeg bëccëg looloo tax guddig ajjuma ak bisu ajjuma yépp ngalawaay foo toll bari la lool lool ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba lenn sax ca boroom xam-xam dem nañ banaan bisu ajjuma day baril julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën baril njàngum alquran ak la nekk ci njàngum alquran lépp ca la nga xamee ne nii moom mooy ay tuyaaba lii mbokk kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ñuy wax loolu gis nañu it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanañu wax ni aji nay dëgg dëgg dëgg mën a xam ngeen ko ñu ne ko ah déedéet yow mi yàlla yónni mu ne aji nay dëgg mooy koo xam ne daa toog ci jataay dégg ñu julli dégg ñu tudd saw tur mu dem ba jóg ci julliwul ci man loolee kon ñu bàyyi ko xel ba baax boo nekkee ci jataay ñuy tudd tur yonent bi lu mu néew néew néew war ngaa julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amma bu dee fuñ ko tuddee nga julli ci moom loolu moom ngëneel la waaye jataay bu nekk daal lu mu néew néew néew moom war ngaa fexe ba julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ay julli dee duñu daje mukk ci benn place wax fa seen mbiri àdduna ba jóg dem kenn tudd fa yàlla kenn nu julliwu fa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu dul loolee yowmal qiyaama pertaale bu rëy lu leen di jural yowmal qiyaama na am mbokk jullit suñu àdduna ji amul lu ci àddu lu dul am na lu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam àddoo looloo tax jullit ñi war nañu miinal seeni làmmiñ heure bu ñuy waxtaan bi mujj na ah comme kay naka yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxee rek comme kay naka yàlla subhanahu wa taala waxee rek seeni làmmiñ taq ci loolu ndax nee na heure boo xamee ni nii daje ngeen ak lu leen mën a dajale ca ba ngeen fa jógee kenn tuddul yàlla kenn jullu ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na loolee pertangale leen di jural yowmal qiyaama lii mbokk julit gis nañ ko ba tey suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ne bokk na ci farata mooy heure boo xamee ne nii yaa ngi julli nga boo taaya ba taaya ba jeex ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ngallaawaay yi nga daal di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam heure boo xamee ne dañuy julli ab néew heure bu ñu jàngee fatiha ba pare dañuy gis na la cay teg mooy ñu daal di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent boobee kon mbokk mooy ka nga xamee ne nii dañoo war a góorgóorlu suñu kemtalal kattan jéem a tàggataat la nga xamee ne nii mooy suñuy làmmiñ ci lan ci ngallaawaay di xool waa man. ñaata yoon laa julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey waa man démb ñaata yoon laa julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te way nga la way dafa ko la nga xam ne ab lim boo xamee ne nii doo ko manqué même bu doon te ne da ngay koy def téeméer yoon par bis wala lu ëpp ci loolu par bis nga la way jullit xoolal sa temps li nga xam ne da nga ko ciy ñàkk ak julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam la nga xam ne moom la lay jural mooy benn jaamu yàlla goo xam ne daje na ca yàlla ay malaakaam ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ngay ñaan mu julli malaaka yi ñoo koy capté di ko delloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla delloo yonent bi ak ruuxam ñu gaaral ko la nga xam ne moom mooy saw tur yonent bi ñaanaat yàlla yàlla wëlbatikuwaat julliwaat ci yow fukki yoon mbokk da ngay xool nag ñaata temps la ñuy perdre ci loo xamee ni nii amul bopp amul genn ca wax yaag portable yaag yeneen te jullit mënoon caa faggu jaamu yàlla gu màgg googee nga xam ni bokk na ca lañ gën a yaakaar mu fajal ñu suñuy soxla yi àdduna dàqal ñu suñuy tiisi àdduna fóotal ñu suñuy bakkaar jegeel ñu yàlla ak yonentam yowmal qiyaama bokk ci loo xam ne day tax yonent bi ramm ñu tabbal ñu aljanna lii mbokk mbir la boo xam ne ku nekk ci ñun bu jógee fii nga la way na ci bàyyiwaat xel utaat ci beneen sas bu bees bu muy sas ci boppam ci bari loolu di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca lu mu gën a bari mu gën a baax lu mu gën a bari mu gën a baax ndax yonent bi dañu daan aksiru bari leen bari leen bari leen yàlla mi nga xam ne mooy jàppale ku ko neex ca la nga xam ne moo koy jëriñ àdduna ak alaxira yàlla nañu yàlla jàppale ñu koy fàttaliku nam yeyoo ñu ko koy fàttaliku yàlla nañu yàlla jàppale ñuy julli ci ab yonentam nam yeyoo ñu julli ci moom yàlla na yàlla subhanahu wa taala boole ñu ca ñëkk a gëm sopp ko topp ko di ko ñaanal guddeeg bëccëg di ko roy yàlla nañu yàlla yàlla boole ca ñi koy gën a jege yowmal qiyaama yàlla nañu yàlla boole ca ñay dëkkandoo ak moom ca firdawsil aala allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين